que dans aucun pays au monde on peut se passer de ces fonds spéciaux. mais il vous demande de rationaliser les dépenses yéen rawatina eh, ñi far ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci pencum ndaw réew bu Sénégal yéen ngeen indi une réponse politique mooy introduire une motion de censure et tey moom le président de la République. non ubbilu da ngeen déposer une motion. non non mais yaa ngi pas en réaction de cette volonté de rationaliser. les rationalisation des dépenses tout le monde est d'accord. mais vous avez rejeté mais dañuy wax ne les institutions. vous l'avez rejeté et vous l'avez annoncé à l'Assemblée nationale. vous me laissez terminer les institutions kenn waru leen mën a foyee di leen doxantoo ci politique politicienne loolu la wax et sur cette question est claire mais lu tax ñu def motion de censure le président Abdou Mbow wax na ko mooy c'était quoi c'est-à-dire que le premier ministre depuis bu mu ñëwee à partir de la date parce que jusqu'au du, mois de juillet le problème ne se ñëpp jàppoon nañu. mu ngi préparé wu pour dem fàttaliku ngeen ci conseil des ministres du 5 juin wax nañ sax état fi ñu toll ci seen DPG pour pare pour dem assemblée nationale. Mm-hmm. mois de juillet mu am revirement premier ministre bëggatul dem assemblée nationale. ci loolu lu leer lu leer te leerlu kenn mënu koo weddi mooy article 55 de la constitution dafa ne premier ministre une fois nommé fait sa déclaration de politique générale jàngalekat yi xam nañ luy fait FAIT présent de l'indicatif loolu kon c'est pas fra c'est pas aura affaire faire c'est fait une déclaration. mais, mais vous avez donné raison au premier ministre à réactualiser le règlement intérieur non non on pas donné ah. ma àggali mooy ci article cinquante cinq boobu amul benn yoon fu ñu renvoyer à un règlement intérieur député yi boo bu ñu falee député buñ la nommé ministre ci constitution bi bu la neexee buñ la boo buñ ñu la wàccee ministre nga dellu à l'Assemblée nationale. mais dañoo ne boo bëggee dellu ci assemblée nationale dañ ko référer à une loi organique expressément or en l'espèce article cinquante cinq waxul fenn que premier ministre pour def déclaration procédurale dafa war a nekk ci règlement intérieur kon lan mooy débat bi premier ministre bañ laq bëgg a laqatu ci ginnaaw règlement intérieur ba mu bëggee laqatu ci ginnaaw règlement intérieur gaa ñi ne buñ ko may prétexte encore que man en tout cas personnellement ma position est que le règlement intérieur bu ñu ko waroon réviser dañu waroon def une révision générale sur tous les éléments moo gënoon sur ce point précis parce que sur ce point précis comme l'a dit le professeur Ismaïla Madior Fall c'est superfétatoire dañ koo soxlawul def ko ak ñàkk koo def benn la ci obligation de premier ministre d'aller à l'Assemblée nationale mu mu mu bañ a dem ñu ñëw Assemblée nationale avant ministre la justice di wax le président que premier ministre buggul ñëw assemblée nationale. loi organique bi ñu waxoon ni moom mooy condition ñun defar nañ ko mu ngi traîner ba tey kenn mënu koo promulguer ñun on dépose une motion de censure donc la motion de censure l'objectif politique était d'amener le premier ministre à l'Assemblée nationale parce que manifestement le premier ministre ne veut pas aller à l'Assemblée nationale et aujourd'hui monsieur le ministre le président Euh, session extraordinaire tënk ko ci article 84 bu constitution bi nga xam ne moom moo ko jox l'ordre prioritaire au président et à son gouvernement le premier euh, pour ñu ubbi ko est-ce que nekkul ne daf leen c'est une manière boo xam ne daf leen a couper l'herbe sous les pieds aujourd'hui non l'objectif parce que motion bi moom dootul amati non bi attends motion bi lu mu doon ut motion bi lu mu doon ut mooy premier ñu am prétexte ñu indi à l'Assemblée nationale il ne veut pas aller à l'Assemblée nationale manifestement donc l'objectif politique ñu mën koo indi Assemblée nationale léegi man kay lu may déplorer mooy président de la république am nga en une semaine nga def deux convocations à l' assemblée nationale lu tax ordre du jour bi yëpp def ko woon ci première convocation buy def loi constitutionnelle pour portant suppression du conseil économique et social ak du haut conseil des collectivités rurales nga xaar ba assemblée nationale def li ngay ngay utiliser tes prérogatives constitutionnelles mm-hmm. pour mani pour faire la politique man c' est là man j'ai beaucoup de respect ah, j'ai du lu fi bees de bon j'ai beaucoup de respect session extraordinaire bu président de respect j'ai beaucoup de respect pour le président la République hmm. parce que moi je respecte les institutions mais dama jàpp quand même le président de comme ni mu waxee woon dana hmm. dans le jeu politicien comme ça ba di di utiliser ses pouvoirs constitutionnels pour protéger un premier ministre. mais bul wax ni. mais monsieur le bañ ngeen di wax. Euh. waaye du lu fi def nañu suñu lu ñu waroon def. te gis nañ lu baax lañ def. lu ma jaaxal lu ma bett lu ma bett. mais loo xam ne yàgg na waru la bett yow. mais mosul amee nii cest dire que nañu waxante dëgg cest à en une semaine président la nga convoqué nga joxe ordre du jour nga ne projet de loi portant suppression du conseil économique et social. Hmm. une semaine après toogul sax une semaine nga defaat beneen convocation. De, de, de, encore en session extraordinaire. Mm. mais c'est une question de logique. pourquoi mais, pourquoi li muy wax nii. et puis quelle est l'urgence urgence xool leen ordre ban urgence mooy am sur la loi sur la loi de règlement de 2022. ban urgence moo ci am. waaw justement ban urgence moo am ci ratification d'un d'un d'un traité qui date de 2014. waaw foofu laa bëgg a ñëw ci ordre donc par conséquent ci ordre de eh, priorité. la déclaration de politique générale bi nga xam ne moo ëpp importance pour sénégalais. waaw ci fin bi. ñu def ko ci ci fin njàngat li ci wàllu politique la wala bëgguñu Ousmane Sonko dem assemblée nationale c'est encore faire du dilatoire def du dilatoire ba mu muccal pour gagner du temps muccal mag euh, Ousmane Ousmane Ousmane Sonko hmm. ci à l'assemblée nationale mais man considère naa hmm. Ousmane Sonko moo fi taxaw ne moom ragalul débat il est prêt à débattre avec n'importe du ma ko mu ne nii ay tappet lañu mais dem assemblée nationale quel est le problème. mais est ce que assemblée bi aussi ni mu ko waxee ak wala ñi ko ñooña bi euh, ah, ah, waxee est ce que assemblée bi ak nu mu tëddee. def fa sa déclaration de politique générale mais moom dafa newoon. Euh, pare na débat pare na débat ak n' importe qui loolu wax hmm. mais ñi fa nekk c' est des sénégalais pas des sénégalais. il était même prêt nee dem dans un jury devant des universités et ñi c'est des Sénégalais on l'invite à un débat organisé réglementaire un débat bu nga xam ne amul amul pàcc pàccoo mm-hmm. mais où est mais que ne enfantillage la ñu nekk gis au sommet de l'État gis man gisuma enfantillage ay li ma gisuma enfantillage ah, plus qu'enfantillage pour moi c'est un désordre qui est en train de s'installer au sommet de ce pays et c'est pas acceptable mm-hmm. am na lu nga xam ni mënuñ ñëw c'est-à-dire que réew dafa am lu ñu koy sàmmee mënoo ñëw nekk premier ministre yooyu yaay annoncé les décrets du président de la République c'est la première fois nañ ma wax rek dans quel pays où le premier ministre annonce les décisions qui suppriment des institutions. mais ñoom seen gouvernance un premier ministre nangu nañu ko. article 87. oui mais nangu loolu doon problème. ci ñoom en fait monsieur le ministre mais xam nga lan moo ñu organisé. waaw mais président nangu na ko kay. Mohamed Mohamed lu président nangu. président dafa am ay yoo xam ne ci constitution la koy jëlee. pré fan ban réew ngeen di gis ñu war a disul assemblée nationale te loolu tamit kenn bañu ko. Mhm. parce que loolu ñu ñoo ko dugaloon ci dispositif ci bi. nga war ko annoncer premier ministre mooy annoncer la dissolution d'une institution qui est au-dessus de lui. parce que l'assemblée nationale est au-dessus du gouvernement. et c'est le premier ministre qui annonce la dissolution du gouvernement or l'article de la constitution dit que. Mm. de l'Assemblée nationale. Bien sûr. kon Ousmane Sonko n'a même pas respecté cette cette prérogative du président de la République. Mhm. de solliciter son avis et de solliciter l'avis du. ñàkk respect nga ko gis. nga de l'avis du président de l'Assemblée nationale ba tey nii ba tey nii laa président de la République sollicité wul président de l'Assemblée nationale pour ne ko damay dama a dissoudre et le premier ministre annonce publiquement. que d'ici le 12 danañ tal leneen je pense que il ne fait non seulement il ne respecte pas les la la, la constitution. Mm -hmm. il ne respecte pas sa fonction il ne respecte pas les Sénégalais. Très bien alors ci biir ci biir